bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallam wa barak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala kii taalif téere bi gannaaw loolu mu ne ilam xamal arshadaka allahu li taatihi yàlla yàlla gindi jubal la ci topp ko an alxanifiyata ni lii di alxanifiya millatu ibrahim mooy yoonu yonent yàlla ibrahim loolu yoon boobu lu mu doon an taabuda allaha waxdahu muxlisan lahu diin mooy nga jaamu yàlla moom dong sellalal ko jaamu gi wa bi dalika amara allahu jamia annaas yàlla digal nit ñëpp tamit moo tax tamit yàlla bind tamit ñëpp loolu tax yàlla mu ne ci alquranul wa ma xalaqtu l wa insa illa li yabudun dara taxul ma sàkk ma bind jinni ak doomu aadama du dul ngir ñu daal may jaamu jaamu bu sell mu ne fa ida arafta an allaha xalaqaka li ibadati boo xamee ni yàlla dalaa bind ngir nga daal koy jaamu fa alam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma at tawxid xamal kat lii di jaamu yàlla des koy tuddee jaamu yàlla mooy du wér lu nekk mu nekk lu ñu nangu fa yàlla lu dafa ànd kennal yàlla kama anna solaata la tusamma solaatan illa ma at tahara mel ni rek julli tamit dees koy tuddee julli du mu nekk lu ñu nangu fa yàlla dul ki ko def dafa ànd laab kon mu ne fa ida daxala shirku fil ibada saa yu bokkaal yàlla duggee ci biir jaamu yàlla fasadat jaamu yàlla boo dafay daal di yàqu kal xadasi ida daxala fi tahaara mel ni ku àndoon laab jékki-jékki rek toj le fa ida njàppam tamit dafay daal di yàqu fa ida arafta anna shirka ida xaalata al ibadata afsadaka wa axbata al amal wa saara saaxibuhu min al xaalina fi nnaar mu ne saa yoo xamee nag nii di bokkaal yàlla bu demee ba jaxasoo ak jëf da koy daal di yàq da koy daal di neelal kaka def mujj nekk ñey sax biir safara ah mu ne nga xam ni kat ni anna ahamma ma alayka la gën a am solo ci yow ci ngir nga daal nga daal di koy xam mooy nga daal di xam bokkaale yàlla boobule lu mu doon ngir lan la allah an yuxallisaka min hadihi shabaka amaana borom bi tabaraka taala muccal la ci bokkaale yàlla boobu nga xamante ne dañ koo nirale mbaal bay seytaane di mbaale ah, ñenn ci doomu aadama yi wa hiya shirku billah loolu mooy bokkaale yàlla bokkaale yàlla boobu nag moom la yàlla wax ci alquran nii inna allaha la yaxfiru an yushraka bi yàlla kat du jéggale mukk jaam ba nga xamante ne bokkaale na ko ba faatu te tuubu ko waaye nag wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha leneen du dul bokkaale yàlla borom bi tabaraka wa taala mën na ko baal ci ku ko soob mu daal di koy delloo ci coobareem bu ko neexee baale bu ko neexee mugale lii nag da ko indi ngir leeral lan eh, lan moo tax ñu war a jàng tawxiid waaw ngir mucc ci bokkaale yàlla bi nga xamante ne dafay tax doomu aadama bi jot mugulub yalla bu sax dàkk ci kawam hada wallahu aalam